pour la première partie, euh, le scandale des chefs. gouvernance bonne gouvernance dafa mës a bokk ci li nga xam ni dañ ko yàgg di jooy ci réew mi ak li nga xam mooy transparence wala éthique ci li ñuy yoree alalu réew waaye gis nañ ni surtout au niveau des cadres de gëm sa bopp gis nañu ni révélation yi nga xam ni moom la le DG de l'ONAS Cheikh Dieng def ci ki nga xam ne mooy kaw Cheikh Tidiane Dieye ay révélation yu grave la ay accusation yu grave parce que Cheikh Tidiane Dieye dafa dem ba def li nga xam mooy joxe ay marché gré à gré marché yaa ma neex dagg ay contrat cible ay entreprise wala ay structure jox leen li nga xam ne mooy marché yi te loolu jàpp naa ni am na ay structure de contrôle wala corps de contrôle yoo xam waroon nañ opposé seen veto beneen bi moom mooy dafa dem ba dafay jaawale ay prérogative parce que technique bi mais nekkul la tutelle financière beneen bi ñun au niveau des cadres de Gëm sa bopp dañuy exiger à ce que ñu envoyé ay mission de vérificateur pour que loolu ñu wax ni Cheikh Tidiane Dieye valet lobby yi la wala dafay lekk mburu lobby yi loolu ñu leeral lañu ko parce que gis nañu information yu ñu jot a joxe jiiñ ko Cheikh Dieng yooyu yëpp dara taxawu ci la ñu waxoon ci carte grise bi gis nañ ni carte grise bi turu Cheikh Dieng nekku ci lañ ci joxewoon comme information yëpp dafa daanu kon nag pour yorin bu wér yorin boo xam dafay sell ànd ak njub pour njëriñu sénégalais yi li ñuy exiger mooy ñu dàq ministre bi mu delloo ñu suñu ministère ñu jox ko ci loxo yi gën a jub pour ñu gën a conforme ak li nga xam moom la ñuy way chaque jour naa jub jubal jubbanti sinon day nekk dëng wengal ak li nga xam moom mooy jubati beneen scandale bi nga xam ne tey moo am dañ koy résumer ñaari structure la yoo xam ne benn bi ay sénégalais ñoo ko taxawal muy ay jeunes sénégalais yëngu ci wàllu électrification rurale beneen bi ay espagnol ñoo ko moom. bi ñu lancé marché bi teg bordereau yi teg yi nga xam mooy cahier de charge yi dañ waxoon ni 1500 villages lañ war a électrifier ak yeneen yi nga xam mooy tegu nga xam mooy contenu local ak li nga xam mooy transfert de compétence et cetera. mais au nom de la renégociation des contrat nga xam ne suñu gars yi populisme rek la ñuy def dañu ñëw jël marché boobu ci ki nga xam moo am paternité bi nekk ay sénégalais de droit jox ko ñi nga xam mooy ay doxandéem ana préférence nationale foofu yow yaa ngi xeex sa doomu réew jox ko ki nga xam ni dëkkul ci réew mi muy dox muy ab doxandéem ko joxee ki nga xam mooy doxandéem bi ARCOP nga xam moom mooy gérer tout ce qui est passation de marché dafa ñëw. opposé vetoom mais DG bi faalewu ko premier élément de scandale deuxième bi bi ñuy def renégociation bi boolewuñ ci DG euh, ARCOP invité wuñ ko ci ci renégociation yi deuxième élément de scandale troisième bi mooy bi ñuy def transition bi dañ ko dañuy accordé benn avance boo xam ni 31 milliards lay tolloo mu nekk troisième élément de scandale te jàpp nañu ni ki nga xam moo moo war a réclamer paternité marché bi moom moo nekk les cette entreprise sénégalaise bi nga xam ni ay jeune sénégalais ñoom ñoo ko taxawal. loolu mu nekk beneen scandale boo xam ni ñu ngi koy ñu ngi koy wax beneen bi mooy ci wàllum leb gi Sénégal dem nañ ba dañuy leb ci leb bi nga xam moo gën a bon ci leb yi muy lancé ay eurobond dañuy dem di jënd ay bor lancé ay obligation te bi ñuy dem di lancé obligation cuune yi ñu doon. dañoo dem defuñu appel à concurrence parce que bu fekkoon da ngaa taxaw ak bailleurs yi ni leen mankat dama bëgg a ay obligation ku ñu nekk projeté ni man mën naa laa jox temps waaye nag ci taux d'intérêt bii nga may fayee waaye itam dañ koy majorer ci tel nombre d'années nga xool le plus dix ans ou bien le moins un franc nga choisir mais dañoo dem de manière automatique choisir ki nga xam mooy JP moo gën te ñu yàgg tee loxoom ci ay scandale beneen bi mooy leeraluñu sénégalais yi JP moo gën boobu lan mooy montant commission ba mu cay amee loolu tam beneen de beneen élément de scandale la beneen bi moom mooy aussi taux d'intérêt bi c'est excessif président Macky Sall mi ñu doon xas nga xam yàgg nañ koo xas fu nekk bi mu mujjee leb ci ay eurobond lancé na yu bari yoo xam ne 5 virgule quinze pour cent ngay fay comme taux d'intérêt mais ñii dañoo dem rek nërmelu dem lancé eurobond boo xam ne 7 virgule 75 pour cent la te Macky bi muy contracté dette boobu ñu ngi nekk en plein Covid nekk ci situation d'urgence beneen bi nga jëlaat beneen exemple Côte d'Ivoire lancé na ay obligations yoo xam ne mat na quatre fois li Sénégal jël te taux d'intérêt bi mi ngi nekk six virgule soixante et un pour cent nga war ko fay ci neuf ans dix ans mais ñii ci sept ans la ñuy fay ci durée bu gàtt nga dem bañ traité Sénégal de spéculatif ni la li nga leb dafa bari jëlal ci bor yi nga xam ni moom nga leb nga dabu bor yi nga xam moo njëkkoon parce que huit cent et quelques milliards nga soxla woon mais leb nga mille deux cent milliards ñu ne la li ëpp ci bor yi demal nga fay ci bor yi jiitu woon kon kay xanaa danga ngaa perte loolu du firnde lu dul ak cuune ci ñi nga xam ñoom ñoo ñu jiite. beneen bi moom mooy prétexte bi ñuy teg pour yaxanal alalu réew mi pour yaxanal alalu réew mi yomb na bay ci say wewu tànk. présidence de la république 80 milliards primature 25 milliards seeni fonds secret ak caisse noire yi boo boolee bu Diomaye ak bu Sonko 20 milliards la lan lañ koy doyee ci seen dund te ci 20 milliards yooyu 20 milliards yooyu ñu wax la liñ ci mën a def 15 milliards boo ko jëlee mën nga ci am 800 ambulances médicalisées xanaa kon mën nañ am un système de santé boo xam ni day smart 18 milliards mën nga ci construire 300 postes de santé 25 milliards nga mën ci tabax 200 centres de santé pendant ce temps centre de santé bu jaxaay mi ngi fële 1 milliard 300 moo ko war a eggali mais 16 ans durant mi ngi taxaw foofu. cela veut dee tout simplement fonds politique yi ak fonds commun yi ak yi nga xam mooy caisse noire yi ñii nga xam ni politique politicienne la ñuy def duñ ko mës a bàyyeek askan bi duñ ko mës a affecté ci préoccupation askan bi. loolu mooy li nga xam ni dañ koy ñaawlu beneen bi mooy li nga xam ni moom la ñuy wax la fausse incarnation te Sonko ak Diomaye di ko affiché fausse incarnation boobu moo ñu indil tey ñu jël ay nit yoo xam ni jànguñu santé dugal leen ci li nga xam moom mooy suñu système sanitaire mu war a nekk suñu jëwriñu wàllu paj mi jëwriñ jooju moo taxaw daal ni sérum glucosé war waru ko jox un patient diabétique ñi nga xam ñooy yëngul ci kër docteur ni ko en kay sérum glucosé mën nañ ko jox un patient diabétique parce que mën na nekk loo xam ne un sulfure salvateur te loolu dafay jaxase le personnel soignant ak population yi boo xamul da ngay noppi beneen moom mooy suñu suñu système de santé dafa am un manque criard xam ngeen ni am na ñoo xam ne am nañ bac plus 10 jàng santé ba mu maitriser ko di chômer ay médecins yu chômer ay infirmiers yu chômer ay ICP yoo xam dañuy chômer beneen bi nga gis ay médecins yoo xam dañu nekk docteur en spécialisation ñu leen di fay par garde mille francs guddi nga war a gérer tous les référés de l'hôpital liggéeyu hôpital bi yëpp nga war ko gérer am na ñoo xam ne ci personnel bi ils sont sous mille 30 francs la leen di fay par mois boo leen demee ci personnel de santé bi di ngeen ko gis personnel soignant bi lii lépp. mu nekk saupoudrage boo xam ni jàpp nañu ni war nañu taxaw def ci ak taxaw seetlu bu ñu ñëwee ci affaire bi nga xam ni moo concerne ñëpp muy affaire u Cheikh Omar Diagne ñu ñëpp xam nañ ni ci Sénégal li ñu am moom mooy un islam confrérique islam boo xam ni dafa basé wu ci njàngale mag ñi nga xam ñoo fi nekkoon ku mel ni Serigne Touba ku mel ni maam El Hadj ku mel ni maam Baye Niass Islam ku mel ni maam Limamou Laye mais ñoom dañu ñëw. Ngagne Demba Touré annoncé la couleur ni ñu dañu am daawa bu ñuy woote waaye yéen kay yem leen ci politique ngeen bàyyi ñu ak sunu ngëm Ousmane Sonko ñëwaat ci livre am ni man du ma murit du ma tiijaan te duma ci changé dara absolument rien léegi gëmoo li ñu gëm bàyyi ñu ak li ñu gëm te nga maandu ci jël Cheikh Omar Diagne nommé ko ci position bu mel noonu moom mooy da ngay cautionner position bi mu am contre tarixa et puis aussi nga mu nekk sa ndaw war la demal fenn di wax ci sa tur mu wax ba pare corrigé woo ko mu wax ba pare dàquloo ko nga noppi ci qui ne dit rien mooy li Cheikh amal Diagne di wax Diomaye ak Sonko dañ cee ànd. fi ñu daanelee moom mooy dundu gu cher gi ak li nga xam ne moom mooy ñàkkum xëy ci ndaw ñi dañuy wax ni nit bu fekkee da nga am bëgg-bëgg yoo xam ni amuloo man-man bi. dañ koy qualifier de crime parce que Diomaye ak Sonko laaj nañ loo xam ni ëpp na seen i mbagg maanaam diis na ci ñoom dañu annoncé woon nii dañuy wàññi dund bi annoncé ni dañuy recruter mille agent contrôleurs annoncé ni dañuy dégager benn enveloppe boo xam ni plus de cinquante milliards mais cinquante milliards yooyu fa la dugg amul njeexital ci dund bi de cinquante milliards yi kenn yëgu ko tey la dund bi gën a cher. beneen bi mooy facture courant facture ndox léegi même les produits pharmaceutiques dañu yokk sous Diomaye et Sonko li gën a yokk loolu moom mooy lan mooy xeex bi nga xam moom lañ dikkee esprit revanchard bi nga xam moom lañu amee ñëw war a jàkkaarloog secteur privé bi war a jàkkaarloog presse bi nga xam ni ay secteur pourvoyeur d'emploi lañ taxaw jàkkaarloog ñoom ni dañ leen di asphyxier dañ leen di xeex tax na tey boo xoolee ku mel nii Eiffage libéré na plus de 1300 personnes CSE CDE ci même situation boobu lañ jëm nga nga xool pour des raisons politique pour caser seen clientèle politique boo demee fu mel ni pour autonome de Dakar libéré nañ plus de 700 employés nga dem fu mel ni mine plus de 40 employés nga dem fu mel ni LONAS plus de 600 employés waaw loolu ba moo waral tey ñu gisaat benn phénomène boo xam ne dafa commencé jugaat muy l'immigration clandestine te boobu ba léegi des centaines de jeunes ñoo ci perdre la vie te Sonko waxu ci Diomaye waxu ci boobu ba léegi ñu ngi ci politique politicienne gi ak